أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب جزاكم الله خيرا سني بروم جل وعلا مني يا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أيين نيغا خمنا دنجينا غم أوفوا بالعقود matal leen la nga xam ne mooy dig yi yi ngeen fasante uhillat lakum bahimatul an'am daganal nañ ci yéen la nga xam ne du wax te jurga bahima mooy képp ku dul nekk di wax illa ma yutla alaykum lu dul la nga xam ne jàngoon nañ ko ci yéen gayra muhilli saydi wa antum hurum xurum lu bokkul ak nag di daganal am rëbb fekk da ngeen a armal inna allaha yaxkumu ma yurid yàlla mooy atte lu ko neex ya ayuha allazina amanu la tuxillu sha'air allah ay yéen julit ñi ngalla waay bu leen daganal mandargay yàlla ya wala shahr alxaram bu leen daganal weer wañ warmaal wala alhadiya bu leen daganal la nga xam ne ay gàtt lañu la ñuy jël di ko yóbbu pour rey ko makka wala alqalaid ak la nga xam ne dañ koo takkal la nga xam ne di mooy ay buum yi wane ne ci ay giléem ak lu mu mën a doon wane ne lii kat ca makka la jëm ci mina wala amin al bayt bu leen daganal it ña nga xam ne dañoo jublu alqasidin ña nga xam ne dañoo jublu néeg ba di kaaba ga bayt al haram di kaaba ga ñu warmaal yabtaxuuna fadlan min rabbihim wa ridwaana ñuy sakku ngëneel yu bawoo ci seen boroom ak ngërëm lu bawoo ci seen boroom wa ida xalaltum fastaadu su ngeen demee ba génn ca armal ba nag su boobaa bu leen neexee rëbb leen wala yajrimannakum shana'aanu qawm bu mu leen yóbbu ci ay bakkaar noonoo gi ngeen noonoog ay nit an sadduukum anil masjidil haram ngëree ne dañ leen a fekk ca jàkka dañu war maal ja an taatadu ci ngeen di jéggi dayoo wa taawanu alal birri wa taqwa dee leen dimbinikoo dee leen dimbilente ci njekk ak ragal yàlla wala taawanu alal ismi wal udwan bu leen dimbilente ci bakkaar ak noonu wattaqullah e waay ragal leen yàlla inna allaha shadidul iqab yàlla ko tar la lu muy mbugale ay jaamam mi ngi noonu mbokk saar bi lañ njëkk a dajeel moo am bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim gis nañu ne borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf ndax daa bokk ci saar yépp ba mu des suratul baraa am na ñu wax loolu am na ñoo xam ne ni it dañu ne bokkul ci benn saar yàlla da koo def muy mandarga bi wone ni saar sangam jeex na yéen a ngi dugg beneen saar ala kulli xaal bismillah mooy yaa ngi tàmbali ci turu yàlla ngay dégg ci ni li ngay nar a def yàlla ci joxe ndigal yaa ngi dimbali koo di yàlla julit lépp lu muy def wax bismillah yàlla barkeel ko looloo tax heure booy rendi da ngay wax bismillah borom xam-xam yi nee nañu boo ko waxul ñii nee nañ boo ko waxul meddina yaa ko tey ak tayoo ko donte ne la ci gën a digg doomu mooy bu dee da ngaa fàtte duñu wax medd la ay boo ko tey moom medd la suñu borom mu ne wala taakulu mimma lam yuskar ismullahi alayhi bu leen lekk ñu waxul bismillah booy jàpp da ngaa war a wax bismillah ngi noonu booy lekk bismillah yéen ci bàyyi sana mu ne même booy ànd ak sa soxna bismillah heure boo waxee bismillah yàlla subhanahu wa taala barkeel da ngay def gannaaw ba allah mooy arrahman arrahman boobu am na ñu jàpp ne melokaanu borom bi la ay mooy borom yërmaane moo melowoo yërmaane rahim muy kii yërëm ay jaamam donte ne am na ñu ne arrahman jëfi borom bi la ay mooy kii yërëm boole mi jaamam julit ak yéeféer amma arrahim mooy ki jagleel yërmaandeem ñu ko gëm kese adduna ak alaxira loolu kon mi ngi noonu arrahmanu rahim borom boobu daal di woote ci saar bi nga xam ne moo ëpp yaa ayuhal lazina amunu ci alquran fukki yoon ak juróom benn yàlla danañu ko ci woo mu bokk ci saar yi gën a màgg yi mujj wàcc ci alquran loolu tax borom xam-xam yi dañ naan lu ñu man suuxal ay lu ñuy jàng te duñ ko jëfee amul ci suratu maida ci saar yi mujj wàcc la bokk mi ngi noonu di daganal di araamal aaye bay wax ne lu doon dagan ak aram jeex na ca la wàcc al yawma akmaltu lakum diinakum tey matal naa seen diini naam gannaaw ba am na ay aaya yu wàcc waaye du aaya buy daganal wala di xaraamal loolu mi ngi noonu ay yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm labbayk allahumma labbayk wax naa la ci lu passé ne heure boo déggee yaa ayyuhal lazina amanu la ca tege day matal ngëm soo ko bàyyee sa ngëm taq na suuf awfu bil uqud matal leen contrat yi ngeen signante mbokk julit heure bu fasante kollëre loolu da ko war a matal ci wàllu liggéey bi la liggéeyal ma lii danaa la fay lii yéen ñaar ñëpp fasante ngeen kii war a liggéey ki ñu war ko fay te waaye respecté leen loolu ci rendez-vous yi ngeen di joxe ci bor yi ngeen di leblente ci lépp loo xam ne yéen julit da ngeen ko joxante ci kaddu ngalla way aw foo bil uqud yonente bi alayhi salaam ne ba ca gën a yey mooy ma istahlaltum bihi al furud la ngeen def ba jigéen dagan la ñëw ci doomi jaabur dama bëgg sa doom ñu suñente ah sëy bi kat nii lay demee mooy da nga may def nangam defal nangam soxna si am na droit sax ne doomu wutal wujj am na ci droit doomu wutal wujj loolee borom bi mu ne da ngeen a gis ne matal leen ko mi ngi noonu wante ne ci kaa yooyu dañuy wax it ne waa ji xaraamul ci moom mu dem takk waaye dañ ne maadaama joxoon na kàddam da ko respecté waaye xaraamul mu takk bis bu takkee it soxna si am na droit génn ci sëy bi lislaam du ko wax dara aw fu bil uqud si ñeentee benn mbir ba pare war ko loolu ci mandargay naafiq la bokk na ci mandargay naafiq ida waada axlafa lu mu diggante wuute ko borom bi nag ne xam leen ne daganal naa ci yéen la nga xam ne mooy jur gi al an'am mooy giléem yi ak nag yi ak xar yi ak béy yi lu dul la nga xam ne dama koo jàng ci yéen ca mooy la nga xam ne da caa medd la nga xam ne da caa medd may tatu wa damm ila ila axiri borom bi subhanahu wa taala it mu ni araamal naa ci yéen ngeen daganal am rëbb fekk da ngeen a armal yàlla muy àtte lu ko neex boo ko ab julit mooy ki jébbalul yàlla def ay ndigalam bàyyi at ay tereem sans wax pourquoi mbokk julit du wax pourquoi julit la muy laaj mooy ndax yàlla ko digle naam naka la ko bëggee waaye lu tax julit du wax loolu suñu borom nee na bu ngeen dee aji ji màkk ngeen armal ngalawaay bu leen rëbb ca jamono dañ daan dox ci suuf suñu borom mu ne danaa leen natt sax la yabluwannakum allahu bi shay'in min as-sayd tanaaluhu aydikum wa rimahukum danaa leen natt ba da ngay xëy gis ay njombar sa fi nga toog ñu ngi noonu nga xam ne booy jàpp rek di jàpp kéwél goo xam ne boo leen bërit di ko jàpp wala picc moo xam ne nii fi mu nekk booy sànni sa flèche di ko dal bare mu ne dinaa leen natt ba xam waaye bu ngeen armalee bu leen rëbb gis ngeen gannaaw loolu borom mu ne may atti lu ma neex te it loolu mooy réglu diine lu tax yàlla aramal riba lu tax yàlla daganal njaay suñu borom mu ne ahalla allahu bay wa harrama riba lu waral loolu mooy yàlla muy atti lu ko neex ci ay jaama lu tax yàlla weeru koor mu ne ee yéen samay jaam aramal naa ci yéen lekk ak naan ak ànd ak seeni soxna ba ba bëccëgu weeru koor di jeex lu tax yàlla wax loolu inna allaha yahkum ma yurid yàlla mooy atte lu ko neex ñun suñu yoon nekkul ci loolu ay jaam lañu rek sami'na wa ata'na borom bi nag mu ne ay yéen ñi nga xam ne da ngeen ne gëm nga la way bu leen daganal mandargay yàlla yi bokk sha'air allah bu dee ci wàllu temps mooy ñeenti weer yi yàlla warmal ñu xeex te bu leen ci xeex bu dee wàllu place mooy lii di makka ak madina bu fa kenn dem di fa jalgati bu dee ibadaat yi la julli koor aj makka lépp min sha'airillah ngalla way bu leen ko jalgati na ngeen ko matal bu leen jalgati weer yi ñu war maal ñee nga xam ne it dañoo jiital seen jur takkal leen ay qalaa'it yuy wane ni lii ca makka la jëm ngalla way bu leen ko daganal yow mi xis ba jël sa jur takkal ko la nga xam ne day wane ne makka la jëm bul dem ci yoonu mukk xiif ren di ko lekk déedéet waaye yéen ñi muy dajeel ci yoon wiit nga la waay bu leen def loolu ca arab yi seen diine lam doon bon bon bon loolee dañ koo ragaloon dañ koo ragaloon mooy lépp loo xam ne dafa amoon xalaa it daawuñu ko jege yéen a ngi fàttaliku keroog sulhu hudaybiya waa makka ba ñu dikk am na koo xam ne dañ koo yónni ne ko demal nga convaincre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu dellu bañ a ñëw biir makka bi mu ñëwee yonent bi ba mu ko séenee ne ñu ngi ñëw mu ne ñii day seen famille ñu fonk màggal kaabe gi lañ daal di ne génn gaaw leen génn gileem yi gaa yi jëli gileem yi nga xam ne dañ leen a takkal xalaayit yi waa ji bi mu ñëwee ba gis gileem ñu takkal xalaayit waxul ak yonent bi dafa dellu dem na waa makka maa ngi gis loo xam ne daganul ñu koy fekk muhammad mi ngi ñëw mi ngi jiital ay hëdyu ak i xalaayit loolu daganal ñu koy fekk te loolu moo nekkoon ordre makka même bu ñu xeexoon ak seeni noon weer yi passé ñu rey ci ñoom ñu bari bépp koo xam ne daa ñëw ne day umra si wala day aj si indaale ay giléeme ki nag ànd ak xalaayit kenn du la laal ñu ne ko hey loolu valable na ci ñëpp ba mu des ci muhammad mi nga xam ne gëmul suñu xërëm yi gis ngeen loolee mbokk yi gis ngeen ca la ñu doog a yónnee Urwa ibnu Mas'ud ba mu demee histoire bu gudd na waaye lañ ci doon jublu rek mooy arab yi lañ doon bon bon bon li nga xam ne mooy alqalaid dañ ko doon sàmm borom bi it nii ña nga xam ne dañoo génn jëm ca Kaaba ga di aji wala ju umra ji mooy amin te loolu it léeg-léeg nit ñi di ci bàyyi xel mbokk amin mooy ñu jublu bokkul ak amin amin mooy yàlla yàlla na nga nangu ama amin mooy ñu jublu ay toujours ci mbooloo mi imam ne wala dalin gis gaa yi yëkkati amin loolu jaru ko waxal amin gis ngeen bañ a def shadda booba nga xam ne mooy wax amin nga xam ne day wane ni ñu jublu ña nga xam ne dañoo jublu ca kaaba ga di sàkku ji ngëneelu yàlla ak yërmandeem te loolu mbokk moo war a yóbbu nit makka donte ne tey jamono ji ñu toll affaire umra ak luxe la léegi néew na koy waxal ay mbokk dama demoon umra dama nangamoon sama umra nangam sama nangam mbokk la wallahi kaaba ga képp ku jóg di fa dem la la fa war a yóbbu mooy ngéniil bu ba woo ci yàlla ak ngërëm bu ba woo ci yàlla loolu la borom bi wax ci jurit ñi bu ñu julli muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا na nga xamee ni nii julit ñi buñ génnee dem ca jàkka ja di julli ji ngëneelu yàlla ak ngërëmal yàlla rek lañ fay wuti yow mi jëm makka aj ak umra ak yépp jarul publicité bi jarul dem makka di wane yaa nga ca kaaba ga ñu lay photo ngay jooy am na ñuy jàng bay jooy alquran ci wët kaaba gi di publicité ah dama nga demee fii ba jaru ko yàkk dem jàkka ji yéen a yem xanaa du ngëneelu yàlla ak ridwaana yàlla ngay wuti yabtahuuna fadla min allahi wa ridwaana suñu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne bu leen leen jalgati loolu lan moo ko waraloon mooy sulh boobu ma leen doon wax sànq mooy la pacte bi amoon hudaybiya sulh hudaybiya yonent bi ak sahabaam ñëw nañu waa màkk ne leen du ngeen fi dugg du ngeen fi dugg histoire ba gudd na ci gàttal lañ mujj suñeente mooy dem leen ba déwén bokk ngeen ñëw nga xam ne ci suñu ndigal ngeen ñëwee waaye du ngeen ñu bett mukk ci dugg màkk yonent bi ne leen d'accord ca la ñuy suñente woon la ñu suñente waaw ku dawee ci yéen dañ koy téye ku dawoo ci ñun da ngeen ñu koy delloo bon daan toog dix ans du ñu xeex ila axiri waaye ndaw ñi nekkoon biir madina nga xam ne seen deret dafa tàng ñu ne ñun ñi ngi bëgg a dem makka ñu ne duñ fa dugg bépp yéefér bu jaarate fi madina day dem makka dañ dañ ko def lu bon yaa ngi dégg suñu borom ne déedéet noonoo ga ngeen noonoog ay nit bu mu tax ngeen jéggi dayoo te it nga la waay yow doomu dirit bàyyi loolu nit tooñ la du tax mukk nga dem di tooñ ay mbokkam ak bari fi ay événement bokk na musiba bu ñu yàlla na tawoon en quatre vingt neuf événement naar yi ndax dégguloon événement naar yi lu bari si yéen ndaw yi boobu ay xale ngeen lan moo xew woon mooy information yu bon yu amul dégg nañ ne Mauritanie ña ngay faagaagal nit ñi ñuul ña ña nga leen di rey di leen tayal xale yi génn jël seeni jaasi fu naar nekk ñu dem ci moom rey leen reyin yu bon a bon a bon partout dans le monde ñooy wane image yi mooy Dakar ña ngay rendi naar ya te information yi ñu waxal jóge Mauritanie amul mais lan moo ko waral dégg nañ ña ngay rey ay naar ay ay ay noir ca Mauritanie waaw naar yi juddoo Sénégal yoroo Sénégal lu seen yoon ci loolu lu seen yoon ci loolu loolu mbokk ku xamul rek moo koy def ku xamul rek moo koy def doomu aadama nit ka la tooñ dajeeg baayam du tax nga fayu ci moom dajeeg doomam du taxu nga fay ci moom moom la borom bi ne fala yusrif fil qatl booy rey nañu yem ca ka nga xam ne moo rey te bu dee sharia sax sharia rey loowul kenn état rek am droit rey qaadi bi nga xam ne mooy atte rek am droit rey loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu subhanahu wa taala nag ne kon bu leen jéggi dayoo fexe leen di dimbi leen te ci luy jur mbaax fexe leen luy dimbilente ci lu jur ragal yàlla daanaka ñaari baat la boo xam ne bu ne mën naa yóbbaale sa moroom waaye buñ ko boolee albirri day féeteeg yu baax ya imma digle julli ak koor digle sarax digle tabax jàkka digle lépp loo xam ne day jëriñ jàppale leen ci dimbali leen ci lépp loo xam ne ak ragal yàlla la fexe ba mbon jóge fi fexe ba ay caaxaan jóge fi jàppale leen ci ba loolu jóge fi amma bu leen dimbilente ci ak noonu borom bi it subhanahu wa taala ni bu leen dimbilente ci luy jur bakkaar jàngoon nañ ko bañee jàng man yashfa shafaatan hasana yakun lahu nasibun minha képp koo xam ne nii daa jëm ci lu baax nga jàppale ko ca tuyaaba jum ca am yéen a ko bokk képp ku jëm ci lu bon ma ngay njaaloo ji ma ngay agressé ji ma ngay bëgg a baali ma ngay bëgg a naani sangara ma ngay bëgg a lum mën a doon ci bakkaar nga dimbali ko ba mu def ko suñu borom nee na yéen ñaar yéen a yem yéen a yem ci bakkaar boobee moo tax borom mu ne ragal leen yàlla te xam ne yàlla subhanahu wa taala ku tar la nga xam ne mooy ay mbugalam la te mbokk julit dafa war a ragal yàlla dafa war a ragal mbugalu yàlla bokk na nattu bokk na gaaf julit dem ba dootul ragal yàlla gàlla waaye nañu ragal yàlla ba baa ñuy mucc ci mbugalum yàlla borom xam-xam yi jëkkee da ngay gis koo xam ne dañu naan sama benn tànk bii day bu tege woon biir àjjana balaa sama xel a dal ñaareel ba day dugg si ndax yàlla lu ko neex def hasanul basri rahimahullah bokkoon sangu tabi'in mooy gannaaw sahaba yi kañ jàppoon ne mooy seen sang gën caa baax mooy hasanul basri boole xam-xam bu màgg ba ak jaamu yàlla gu màgg ga bari woon nañu koy gis muy jooy ñu ne ko waaw looy jooy yow imam hasan mu ne waaw suñu borom nee na faalu lima yurid yowm alqiyama buñ ne ana hasanul basri ñu ne ñi ngi nii mu ne yóbbu leen sawara ku nan ko yàlla lu tax ku nan yàlla lu tax loolu moo tax ba mbokk julit del boole alxawf wa raja yeneen ci yàlla ak nit ñu baax yaduuna hu rëhëban wa rëhëba mi nga noonu rëhëban wa rëh- wa rëhëba dañ daan ñaan yàlla xemmem yërmandeem ñaan yàlla ragal mbugalam lii mooy nekk ci xolub julit xol ba doog a baax bépp xol boo xam ne yaakaar yàlla nekku ca baaxul bépp xol boo xam ne ragal yàlla nekku ca baaxul yal na yàlla wërsëgal ñu ñu ragal ko nañ ko war a ragale wa yaakaar ko nañ ko war a ra yaakaare lépp lu ñu ragal ci moom yal na yàlla fanqal ñu ko lépp lu ñu yaakaar ci mu àdduna ak alaxira yal na yàlla yombal ko ca jagleel ñu ko wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ndax li nekk ci téere jëkk yëpp mi ngi ci alquran wala alquran dafa indi waxi boppam li nekk ci téere yu jëkk yi alxuraan da koo tënk indiwu ko ci détaillé ko waaye la ca gën a am solo alxuraan tënk na ko bu dee wàllu pas-pas ba alxuraan indi na lépp ni lañ war a gëmee yàlla amma nag bu dee wàllu ja ni ñuy jaamoo yàlla suñu borom mu ne wali kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja téere bu nekk yàlla def na ca façon nu ñuy jaamoo yàlla lu bokkul ak téere ba nekk ca beneen su ko defee ñun jullit lu suñu borom def nañu ni téere yi jiitu woon ña nga xam ne ñoo ko yoroon jalgati nañ ko loolu moo tax ba lépp loo xamee ni nii da caa dëppoog alquran dañuy am yaqiin ne lii moom ci yàlla la jóge lépp loo xam ni alquran da ko weddi dañuy am yaqiin ne lii moom jógewul ci yàlla lépp loo xam ne nag alquran weddiwu ko saxalu ko ñun dañ ciy maandu duñ ko weddi duñ ko saxal nii la julit di jëflante ak téere yu jëkk ya wallahu subhanahu wa taala alam naam waaw imam kii dama gis man am na yenn nag yu ñu dox ci dëkk bi côté Kër Massar bi mooy dem ci yoonu géej naam dama dégg daal bu dee dëgg la ñu ne xaw ma dafa am ko ci defoon nañ ci def ba ñu bàyyi kenn du leen daal ku ciy jëfandiku xaw ma da ngay dee yu mel noonu naam bu dee loolu wér na moom yooyu nag naam day wax rek nag yi nga xam ne seen cosaan mi ngi jóge ay liberté 6 léegi-léeg ñuy dem ba les àllu Kër Massar bi bokk na loo xam ne nii nit ñi dañ koy wax ne kenn du ko laal ku ko laal rek da ngay alku loolu ñaar mën na ca am mën na nekk mythe mooy nit ñee ko wax ci teguñu ko fenn est-ce que xam ne nit ñi dañuy xëy wax yoo xam ne nii cosaan ba kenn mën na laa wax kii moom a ko wax dégg naa rek mu ngi noonu dégg naa ñu ne loolu mën naa nekk doonte ne it mën naa am ci njabar jabar mën naa am waaye loolu dafa xaram def loo xam ne nii ci sa jur kenn du ko laal ci njabar dafa xaram am na ñoo xam ne li ñuy def seen seen seen i mbir sàcc bu ñu woon sàcc ko tey dana wëndeelu wëndeelu wëndeelu ba sonn dellu si waat waaye loolu dafa xaram loolu ñun xam nañ ay nit ñu ko man waaye nag dafa xaram loolu ñu bàyyi ci xel bu baax doomu aadama del ràññetle lu baax ak lu xaram kii sàcc nga dem waa ji ne la ah man day ki nga sàcc mën naa fexe lam sàcc mu indi ko lañu sàcc ñu indi ko loolu baax na de waaye fi nga jaar dafa xaram su ko defee jullit lépp lu muy sakku da koy sakku ci yoon bu dagan waaye lépp loo xam ne da nga koo sakku sakkoo ko ci xa- lu xaram loolu baaxul mi ngi mel ne tey may nañ la benn soxna soxna si bëggu la nga dem ci sëñ càmm njabaral la ko ba mu bëgg la xanaa kay loolu baax na di baax na de waaye dafa xaram am déet dafa xaram njabar gam ko njabar ba wulbati xelam dafa xaraam loolu lu bëri ci nit ñi nag loolu lañ xamul wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam ndax yowmal qiyam dafa am ñu ñu yónni waat ci ñoom yonent loole rot na ci sunna ni mboolem ku musul dajeeg yonent yowmal qiyama yàlla da leen di dajale yónni ci ñoom ab yonent malaaka mu ñëw ne leen seen borom yàlla moo nee na comme yéene ne bu ngeen daj alaxira bu ngeen xamoon ay ndigalam jëfe ko digal na leen dem leen tabbi sawara ña nga xam ne am nañ ca pas-pas ba Ibrahima amoon yépp daal di jóg dem te it maa ngi rafet njortu ci ñun waa jàkka ji jàpp nañ ne ñun ñii ñëpp ku ci wóoroon ne yàlla la jox ndigal tàbbali sawara da nga dem tàbbi fa mi ngi noonu loolee ña nga xam ne wóor ña nga xam ne yàlla xamoon ne ne ñii buñ daje woon ak yonente gëm ko ñoom ñépp daal di jóg dem dugg sawara donte ne buñ jógee sawara du leen lakk ñeneen ña fa toogoon di constater ko di cons- contester di di jàmbat suñu borom ñoom la yóbbu sawara loolee kon la ñuy tuddee ab yonent waaye di yonent buy ñëw di wàccee téere wala di leen waar mi ngi noonu xam naa ñu mu ah waaw waaw al awalan yé du yéeféer dafa am ñaar yéeféer bu am téere muy chrétien wala juif kooku dagan na julit takku ko yéeféer athée communiste yi majus yi lu bari nga xam ne amuñu téere ay yéeféer lañu kooku daganul julit di ko takk loolu ñu bàyyi ci xel bu baax bu dee da ngaa takk ab chrétien it bis bu deeyee yow doo ko doon yow boo dee moom du la doon képp koo bokkulul diine yàlla dogal siy seen diggante ak ndonn du am seen diggante loolee tamit di mbir moo xam ne mbir bu leer la wallahu aalam waaw xanaa ngeen baal ma ah ma mujj waaw waaw bismillah sëñ gay waaw waaw mu ne yooyu yépp ci turu sawara la ay buntu la suñu borom mu ne am na sabatu abwaab mi ngi noonu da nga xam ne ni jahim mooy la nga xam ne ni dafay ay xal yu màgg yuy takk bon sair da ngay gis loo xam ne dafay takk jëm kaw comme laza ay flamme la yoo xam ne day lakkaate yax muum dafa doon loo xam ne nii genre ammoniaque la boo xam ne da leen di suffoqué ala kulli xaal yooyu yépp moom la ñuy tuddee ay kalu safara jahannama laza sair saqar xutama hawiya yooyu yépp ay bunt la mais loolu lépp boo ko boolee mooy an naar yal na yàlla musul ñu ci naar waaw ñu mujj ci mbokk bi rek bismillah waaw waaleykum salaam wa rahmatullah rasta dagan na bu dee jubluwoo ca roy ay yéeféer bu dee ne aada la boo xam ne dañoo aadawoo di ko def ci seen dëkk aadawoo nañu ñoom di ko def fekk yokkuñu ci dara na doon góor lañu ay jigéen lañu boo di man ci yenn àll yi am na ay genre pël yoo xam ne dañuy litt seen karaw karaw bu dee ne daal karaw kese gi la nga doon littu te bi nga koy def doo nuru nurulu ay jigéen nuru nuruloo su ndaw ñi nga xam ne la leen yóbbu ci rasta mooy rastafarisme ñoom bommar léegi yu roy ak ay dof yooyu ah bu dee ne loolu moom nga ci jublu loolu mu dafa xaraam amma nag bu dee aada la boo xam ne nii aada la bu xew ci seen région ñu gis góor di ko def wala jigéen di ko def nurulu luñ ci nee yéefér nurulu luñu góor ak jigéen su boobaa loolu dara nekku ca wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain